Votre bulletin d'information communale, BIC. waa man la Ndeye Diarra mu Serigne Fallou waa artiste taasukat ci Pikine Nord waa tubaab fa gàll yàgg naa ci politique bi am na fu ma nekkoon yàgg fa lool nag waaye daf fu ma fëddali mais bi ko yàlla jeexalee yàlla boole ma ak Lamine ma xam ne am na ambition baax na yërëm na askanam. yërëm na goxam mi ngi dimbali te du ko wax ma ànd ak moom. man maay géwél boo xam ne aw ma géer aw ma ñeeñoo. man xanaa nag baax mën social di def lu baax te ñun géwél dañu gën ndax kuy def lu baax rek la ñu bëgg ñun bëgguñu dara ndax yàllaa ngi ñu suturaal waaye booy def lu baax barke Serigne Touba Mbacke. bax gem barke Serigne Touba motax ma and ak mom fasiyene yéene liggéey Pikine Nord waaw mu nek mer rek waaw dam nek nako ba pare ndax touba fa kala dama degu ñu ne geewal war waruta far ak kay geewal bu bëgg jox goxam day far dama bëgg bëgg bakki bi mako jox bu élection yi jotee yàlla nañ koo ko takkal ci mairie ba ci barkeb sëñ Fallou ankay ci toogu laa njëkkee am naa moom fukki at ak juróom waaye yàlla mooy dogal diggante sunu borom jeexal ko te ñaawul waaye daal tubaar fakàll maa ngi ci lamin xanaa tubaar fakàll rek ñu takkuwaat xam ni lamin kii raam di la bokk ba amee oto dugal la ci te lamin mi ngi def lu baax mi ngi ci social yi mi ngi ci hôpital yi mi ngi ci jàkka yi mi ngi seeti ñi feebar ku wopp mu faj la nan ko bàyyi xel Tubaarkalla